alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain mbokku internet yi nga xam ni du ngeen dañ mukk di ñu topp ci biir Fafa TV xam ngeen ni saa su nekk dañuy am mbégte di jàkkaarloo ak yéen war leen indil suñu jotaay bi nga xam ni moom mooy jotaayu faj di wér ak wérle ñu si am mbégte toujours di si dalal kii nga xam ni moom mooy professeur Youssoufa Ndiaye ci xam-xamam ak wax dëgg yàlla yitte bi nga xam ne mu ngi ko jox lii nga xam ne mooy lii nga xam ne moom lay liggéey di ci gëstu kon euh, kon ni ngeen ko xamee rek sans plus tarder dañ koy jox mu nuyoo ñu soog a dugg tey ci suñu jàngat professeur vous avez la parole alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin wa ala wa ashaabihi ajmain Euh, bokk yi fu ngeen ñuy mën a dégloo rek moo xam ci biir réew mi la walla ci bitim réew ñu ngi ñaan waxtu yii kat fekk leen ci jàmm sunu borom wasaare ko ci fépp foo xam ne ab jullit a nga fay yeewoo euh, kon nag sëñ Bamba mm, gannaaw loolu ñu ngi lay delloo nuyoo bi euh, di wax ni rek am nañ mbégte jàkkarloowaat ak yow tey ngir rek séddoo ak askan bi li nga xame ni mooy suñuy gëstu ci wàllu wér gu merci beaucoup professeur. mbégte bi ñun ñoo ko gën a am. waaye comme ni ngeen ko xamee rek professeur. tey nag moom wax dëgg yàlla xam naa dama bëgg ñu ñëw ci loo xam ne ni mën nañ wax ne sonal na askan wi te mën nañ wax ni sax maanaam internet yi ñoo koy laaj ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo lay suivre ndax lan ndax dañoo gis ni kat boobu ba léegi bi ñuy def maanaam jàngatee gëstu yi dafa mel ni soit dégguñ la nga wax si wala boo soit sa xam-xam màccu si wala xëy na dafa bokk ci nga xam ne ni peut-être xëy na doo ko traité. Mm-hmm. mooy lan mooy hémorroïde. Mm-hmm. professeur tey nag dañoo bëggoon bu fekkente ni sa xam-xam màcc na si mm-hmm. nga dikkal ñu si lan mooy hémorroïde. lan mooy cause yi lu koy joxe. ak li nga xam ne nii maanaam mën nañ wax. moom moo koy saafara. Mm-hmm. alhamdulilah euh, sëñ Bamba waxtu wi nga ko laajee sax euh, waxtu woowu fekk na bind nañ ci ba teg ndax ñun daanaka li ma la wax rek lu mat euh, ñaar fukki feebar ak juróom-ñett lañu suñu xam-xam màccagul am na nag yoo xam ne ñu ngi ciy gëstu ngir jëm ca waaye bu ñu demee ba jekk ko rek daañu ko boole ci feebar yi ñuy faj. macha allah. waaye hémorroïde bokk na ci ñi nga xam ne moom la ñuy saafara bokk tamit ci feebar yi nga xam ni comme ni nga ko waxee euh, dafa nekk loo xam ne xàmmeewul mag xàmmeewul xale xàmmewul góor xàmmeewul jigéen danga naan daanaka askan wi yépp dañoo hémorroïde ndax boo xoolee ni li ngay amee patient yoo xamee ni wax dëgg yàlla loolu mooy seen gàllankoor ba tax na am na li nga laaj nag lépp du ci xaj muy lan moo koy waral lan naka lay feeñee naka lañ koy prévenir lan moo koy faj ak yooyu na du xaj ci waxtu waaye dinañ ci maye rek mhm. ak euh, wax ci li nga xamee ni tey ji mooy essentiel yi mhm. dama bëgg rek ñu ñëw ci lan mooy jàngoro ba pare waaw parce que dama bind ma ni la maladie est le résultat d'un ou des facteur quelconques provoquant le dérangement du bon du bon fonctionnement de la physiologie d'un organe d'un oubien bien des organes. des organes. waaw léegi nag su ko defee loolu lan mooy lan lay tekki mooy maanaam jafe-jafe joo xam ne ni dafa xew ci sa biir yanam wala ci sa environnement li la wër. Mhm. loolu déranger lenn ci sa cër yi biir yi wala yu biti yi. jural la jafe-jafe. feebar sa saa su nekk day am cislaay boo xam ne moo jur feebar bi loolu la ñuy wax doomu jàngoro ji wala ñu ne ndeyi jàngoro ji mhm. bu dee doomu jàngoro ji mooy virus bu lay dugg. bu dee ndey jàngoro ji mooy facteur bu ko mën a waral rek léegi nag feebar yi dafa mel ni damay wax ni bànqaas la maanaam feebar bii danga koy am mu indil la jafe-jafe ji jafe-jafe ji indil la bii jafe-jafe jee indil la bee comme tey yu bari ñoo xam ne am nañ faiblesse sexuelle maanaam hémorroïde bu demee ba yegg ci phase finale dafay wàññi sa ngóora bu dee ci ñu góor ñi la bu dee ci jigéen dafay wàññi yëg-yëg bi nga xamante ni amoon nga ko ci wàllu sëy mm-hmm. kon maanaam mu ngi mel ni branche rek bii day sax fii bii sax ci kawam bii sax ci kawam bii téye bi bi téye bi ba ci taat bi kon nag ma bëgg a ñëw ci euh, lan mooy cause yi d'abord. effectivement waaw kon hémorroïde lan moo koy waral euh, maanaam gis nga maanaam feebar yu baree bari tey jii seen jafe-jafe mu ngi jóge ci mauvaise habitude. mauvaise habitude. waaw boo am. maanaam professeur mauvaise habitude. maanaam nan la indee nan la demee ba mën a jur léegi ay feebar. waaw mauvaise habitude nag bu ñu ko waxee yaatu na par exemple koo xam ne tàmm nga di takk ceinture foo toll warul di seere yenn seere yi di ko takk mu seere dëgg te da ngay duy biir ba mu fees dell loolu yaa ngi am loo xamante ni jafe-jafe booy jural mbàq mi te xamuloo ko te loolu yëpp dafay jur yeneen jafe-jafe yooyu yëpp ay soins la ñu war a wax nit ki mais nag bi ma ciy jël tey ci mauvaise habitude yi mooy mauvaise habitude alimentaire. mooy maanaam yow sa comportement ci wàllu lekk normalul ndax lekk dafa am ñu koy jëlee am ci waxtu wuñ koy jëlee li yëpp maa ngi bëgg ñëw nag ci cause yi nga xam ne mooy indi hémorroïde est-ce xam nga ni sëñ Bamba mauvaise habitude yu bari depuis bi nga nekkee xale la ko nit ki di am adopté am na yoo xam ne sax way jur yi ñoo la ci yar. ñoo la ci yar. waaw léegi nag nga laaj ma exemple. effectivement jox ñu exemple boobu. waaw exemple bi ma ci joxe par exemple xale bi nga xam ni. bu njëkk mag ñi dañ daan yar xale pour bu génnee bu muy bu mu bu mu lekk feneen fudul ci kër gi. ci kër gi xam nga am na ñu yaroon noonu am na ñoo xam ne restaurant lu restaurant neex neex ak fa ñuy liggéeyee ci chantier ba wala ci bureau ba lu mu neex neex depuis bi ñuy nekk xale nekk élève di jàng ba bi ñuy yegg feneen tàmmuñu di lekk ci mbedd. ci mbedd comprendre mm-hmm. léegi nag euh, loolu noonu nekk ci yow nekk ci yow ba nga màggaaleeg moom ba nekk nekk ko xam te ni fonctionnaire nga wala ngay liggéey. léegi nag yow tàmm nga di xiifal guddi gi yëpp di xiifal bëccëg gi yëpp doo añ yaa ngi dégg ba guddi nga toog doog lekk li may wax ni fonctionnaire yu bari loolooy seen jikko. effectivement dëgg la. voilà du ñu tal lekk liggéey bi buy assisté doo tal lekk léegi nag yaa ngi déstabiliser système hormonal boo xam ne mu nekk ci biir intestin bi ci mbàq mi. Mhm. parce que nit dafa am lu tax muy xiif ay leptine yooyu yëpp ay hormones la yoo xam ne si 63 hormones yi nekk ci doomu aadama tey ji am na loo xam ne bu ñu ko dindi woon ci yaw dootoo mar ci àdduna parce que lépp ay ay fi maanaam yàlla ni mu tëggee doomu aadama moo yéeme waaw mu ngi mel ni sa portable rek logiciel yi ci def ak câble yeeg fil yeeg yooyu yàlla lépp da ko def léegi nag sa biir bi boo koy habitué ci xiif dafay auto consumé wu biir dafay maanaam la voilà bu toogee lu yàgg amul lu mu lekk lu mu lekk day commencé di lekk boppam maanaam biir bi mooy lekk boppam mooy mbàq mi day lekk boppam ñu bari yàq nañ tisi bi nekk ci mbàq mi parce que mbàq sax juróomi fan xam nga der doomu aadama lépp yàlla da koy recycler mhm. dinaa ci gën a ñëw ci biir waxtaan wi euh, maanaam der deru doomu aadama cent vingt jours dana fekk der bi nga yoroon yoratoo da fekk mu mu changé complètement fa ngay sangoo di fa bàyyi ay ruus ak yëpp ba der bi teguwaat. teguwaat mais doo ko yëg mais nag mbàq mooy li ci gën a gaaw parce que mbàq par juróomi fan la koy def tisi bi nekk ci kaw tàng na tàngaay boo xamante ni dafay war di teggee ko chaque cinq jours di waat comprendre léegi nag yow booy tàmmal mbaq mi di xiif muy autoconsommer wu dafay dem ba ñu baree bare tisi bi ci kaw fonctionnement boobu yàqu na nga gis dégg commencé biir bi naan xuuj wala boo naanee ndox nga gis mu muy am yeneen comportement cest am na loo xam ne yàlla bindeewu ko doomu adama léegi nag euh, loolu sëñ Bamba mhm. euh, lu ma doon ubbee la léegi nag euh, troisième bi mhm. mooy ñu xam ni lekk ki nga xam ni sax waxtu lekk bi xiif na mu dem naan fondeem sax moo tax ne ki nga xam ni dem na ba passé waxtu woowu donte day jënd yàpp walla lu riche lekk ko te lekkoo ko ci waxtoom ka nga xam ni sax moom moo naan fonde ca waxtu wa moo lay tane parce que fa ko yaram wa soxlaa fa la ko joxe mais yow par exemple lekkoo bëccëg gi yëpp nga toog ba guddi donte yàpp lu baax ci doomu aadama la nga jël ko waxtu woowu yow da ngaa da li ngay def noonu sax maanaam danger la ci sa wàllu santé donte li ngay lekk lu baax la kon lekk du ci li ngay lekk mais ci la bokk mais tamit ci waxtu wi ci la bokk. waxtu wi kon mauvaise habitude yooyu mooy dem ba ju problème mu mbaq dem ba nga xam ne day continuer ba jural ñenn ñi li nga xam ne moom mooy ay hémorroïdes yoo li ngay wax am na solo. mais ñun des fois dañuy faral di dégg ñu ni hémorroïde kat. maanaam lii moo koy joxe maanaam toog toog bu bari. Mm-hmm, mm-hmm. ñenn ñi naan da hémorroïde interne ak hémorroïde externe. mën nga ñu confirmer ni effectivement maanaam hémorroïde. Mm-hmm. toog bu bari soit moo koy joxe ak lan mooy hémorroïde interne ak externe. waaw léegi hémorroïde euh, dafa am fu muy sax ci biir ñu tuddee ko interne am fu muy sax ci biti ñu tuddee ko externe. interne bi tamit mën na dem ba sans dépend ci ni muy génnee loolu mécanisme boobu daa ci ñëw ci fin wu émission bi. incha allah léegi li ma doon wax sànq ci mauvaise habitude. de leen mhm. lekk lu baax. Mhm. tey bañ a xool lu neex. Sénégal dangay ngay dégg mu ni su sa su kiyee da ngay dégg ñu ni neex na doo dégg ñu ni baax na de. non moom toggam gi saf na saf na rek ngay dégg doo dégg ñu ni baax na mais chinois yi euh, ñoom lu ci ëpp ay xob la ñuy lekk danga naan ñii li ñuy lekk nii lu mu doon na réew yoo ni. boo xoolee mortalité bi dafay dafa wàcc wala ñi fay feebar yenn feebar yi du bari fekk ca la ñuy dundee la comprendre nga mhm. am na benn livre bi ma am fii kooku benn autorité française moo ko bind ku ko ku mu intéressé mën nga ko jënd mu ngi ko tuddee sa soigner par l'alimentation docteur Paul Nathan moo bind livre boobu léegi sëñ Bamba euh, am na benn loi bu yàlla teg xam nga yàlla boo demee suratu yaasin borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni wa man nu ammirhu nu nakkisu fil xalq maanaam processus su màgget yàlla moo ko def ci doomu aadama maanaam ku mu dundal rek dana def ci yow ak ràpp léegi nag loolu nit ki mën na ko accélérer am na yoo xam ne boo koy boo koy boo koy dundee da ngay teel a màgget ci naka maanaam naka ngay def maanaam voilà boo dul lekk ci wenn waxtu yi yenn waxtu yi waxtu wi mu jotee boo xiifee demal nga lekk mu ngi mel ne nga safa tuur ndox demal nga tuur ndox baaxul nga téye noonu la demee ci phys maanaam euh, limite physiologique yëpp noonu la demee. kon maanaam suñ la déggee professeur mooy maanaam dafa am heure yoo xam ne si lañ war a ndékki ci nga war a ndékki ak heure yoo xam ne si lañ war a añ ak heure yi nga xam ne si lañ war a wala est ce que sax noonu la est ce que du du nit ku maanaam ñaari repas par jour doy na wala wala noonu dëgg la léegi xam nga yow sunu émission yi njëkk yi maa ngi ci doon wax euh, soo seetloo xam nga tey ji wàllu mar mhm. boo feebaree lan mooy njëkk dem ci yow mooy sa appétit sa lekk ak sa naan nga gis ñu koy forcé naan ko moom dafa nangu la lekk nangam nang boobu dafa am lu désactivé wu mais am na loo xam ne bu activé wu rek moo lay moom yow moom loolu nga jox noonu di ko sol moo la koy gën a sawar mais loolu moo désactivé li ma la lépp ay hormone la lii yàlla dafa def ci nit pour muy mar am na lu ñuy wax canal TRPV cinq ak TRPV 4 looloo tax nit di soxla ndox incha allah yooyu canal yooyu bu tëjoo dootoo mar. dootoo mar nga di yëg ngay ngay ngay ngay sonal sa bopp di teg sa bopp loo xam ne noo ko boo boo xiifee doo lekk boo kiiyee doo lekk mais processus bi ngay def da ngay teel a màgget noonu la amee contraire bi tamit booy lekk lu baax da ngay gis koo xam ne asam dafa kii ñu naan kii xale la fekk ni muy dundee moo baax waaye mag la mais processus boobu la ralentir. kon maanaam lépp mu ngi ci ni ñuy dundee bu ko defee ma doog a ñëw nag ci hémorroïde bi carrément. effectivement joxe benn alerte. Mhm. balaa maa ñëw ci externe bi ak interne bi mhm. alerte bi may joxe maa ngi koy joxe ci wàllu ballonnement ballonnement mooy lan mooy biir buy jooy ballonnement mooy biir buy jooy biir buy jooy ballonnement bokkul ak maanaam biir bu rëy waaw mooy biir bu funki sol air di jooy di jooy waaw nga dégg mu naan xuuj léeg-léeg mu ne xuuj jëm kaw léeg-léeg mu ne xuuj jëm suuf ndax dafa am nu yàlla bindee mbaax gis nga soo lekkee ba pare daa am lu ne fii loolu day tëju loolu li tax muy tëju mooy pour may mbàq mi mu reesal parce que bu fa duggee doonatul aw ñam leneen la su su fa duggee doonatul aw ñam leneen la da koy commencé transformer te bu ko transformer am na yoo ne ay acide la su yéegee rek mën na mën mën na lakk yenn tissu yi moo tax muy tëj kii bi comprendre kon ñi nga xam ne dañuy am ballonnement di ngelawal lu bari am problème boobu foo tollu di ngelawal mais lu lu lu bu mu la déranger ci biir nit ñi ba mu tax nga koy téye hmm. am na ñu bari liñ koy def li mu baree ak li ñuy nekk ci nit ñi mu bari moo tax ñu koy jéem a téye bañ di nekk nekk ci mbooloo mu yàgg yëg-yëg bi dikkal la nga di ko téye comprendre am na ñoo xam ne tamit pour bëgg a téye njàpp lu yàgg comme jàpp fajar nga bëgg cee julli nag ba tàkkusaan wax dëgg yàlla day xaw a doy waar hmm. ci sa wàllu wér gu yaram kon léegi nag ma indi conséquences yi nga xam ne gaz boobu gaz bi ngay téye ci biir biir bi mu bëgg a nga téye ko loolu nan la la mën a jural mën a xam nga bokk na ci li gën a am doole ci alam bi ci li yàlla bind bokk mooy ngelaw ngelaw suñ Bàmba bu la yàlla mayee ba nga yéeg ci tali bi daje camion yu mag yooyu mu ñu sëfee seen pon yooyu mhm. gis nga pneu yi bu demee ba amatul doole faaw mu doon pneu bu bees tàq parce que air moom moom moo yenu li muy diis dis air a ko yen parce que pneu bi bu amul doole dëgg wala mu xoos da ngay gis air air bi lu mu kii kii day xëtt sàmbaraay bi dagg pneu bi génn da ngay dégg tëf air noonu la amee doole léegi nag yow muy téye ngelaw loolu day enfler sa sa sa kii sa sa sa sa sa colon bi maanaam gaz bi day dellu ci biir di enfler di taw yi kii def nekk benn euh, loo xam ne dafa dafa lu ñu mel ni euh, lu ñu hmm, nan laa ko mën a waxee Euh, lu nekk sous pression. sous pression comprendre nga. Mhm. léegi nag euh, gaz boobu nga xam ni dafay dafay kii dafay dafay indi yeneen fonctionnalité yoo xamante ni daf koy déranger moo tax yooyu il faut ñu bàyyi ci xel. bàyyi xel léegi nag euh, bu ñëwee ci cadre interne bi ak externe bi xam nga hmm, dafa am ñoo xamante ni dañuy fal di seere. Mhm. mën nañu seere ñeenti fan wala juróomi fan ñenn ñi sax day yegg une semaine bu sévère dëgg. léegi nag euh, su demee am na ñoo xamante ne sawaruñu sax dem gannaaw kër parce que suñuy dem gannaaw kër day metti dafay ànd ak douleur douleur bu aiguë comprendre day mel ni ay paaka mooy jaar ci digg ci ci gannaawam foofu di dagg affaire ñenn ñi sax day dem ba day nàcc comprendre mm-hmm. léegi nag pour xamal la euh, hémorroïde externe bi maanaam positivité la bu demee ba génn loolu lu baax la. lu baax la lu baax la. maanaam hémorroïde bu demee ba. génn nekk hémorroïde externe lu génn. lu baax la parce que xam nga lu tax. anus bi ak fii maanaam mooy fii dem àll bi di jaar. xam nga dafa am volume léegi nag su hémorroïde bi ñëwee sax foofu déjà jël na benn place. Hmm. léegi nag. dem àll bi war a jàll tamit war a jëlaale place foofu léegi nag de sa fet dafay daf koy daf koy tawee ba ñenn ñi dañuy dagg boobu dañuy dagg deret ji di tuuru léegi nag am na am na ñoo xamante ne bu bu dem àll bi di ñëw hémorroïde bi day génn bu génnee bàyyi anus bi nag volume bi mu war a am mu am ko dem àll bi mën a jaar yoon. moo tax ma ne d'une certaine manière maanaam lu positif la. lu positif comprendre nga. ñenn ñi ñoo koy delloog seen loxo mais boo xoolee. li tax mu génn pour maanaam dem àll bi mën a jàll normal parce que bu fekkee doolu dafa ñëw jël foofu place ba pare dem àll bi war fa ñëw jaaraale jëlaale place moom itam day dagg kii bi deret gi tuur ñu bari dañuy sañe nee na bu soobee yàlla ku ci ñëw rek incha allah dinañ ci jàpp léegi sëñ Bamba ngir bañ a guddal euh, comme li ma la wax rek ci wàllu hémorroïde mm-hmm. xëj na dinañ ci gën a ñëw ci yeneen yi. effectivement waaw yeneen i solution mhm. waaye ala kulli haal euh, lii la ñuy njëkk comme waxtu bi mayew ko. Mhm. lii la ñuy njëkk wax nit ñi ñu bàyyi ci xel. ñu bàyyi ci xel mhm. effectivement donc professeur comme ni nga ko waxee donc euh, tey hémorroïde nga euh, moom nga ñu indiloon nga xam ne nekk na feebar boo xam ne. bu sonal vraiment askan wi la. te nit ñu bari tamit ñu ngi siy jàmbat. te yaakaar nañ ne wax dëgg yàlla li ngi si wax nekk na lu am solo. waaye tamit xam naa rek comme ni nga ko waxee comme waxtu wi njëtt nañu. Mm-hmm. bëggoon nañ xam rek ndax yow danga am ay garab yoo xam ne. Mm-hmm. moom ngay traité hémorroïde ak ku ko bëgg. Mm-hmm. maanaam nu muy def. waaw ala kulli haal bokk na ci feebar yi njëkk a gëstu attaqué ko bu baax a baax a baax ndax euh, waaye nag ci consultation lañ koy faje ndax bari na ñoo xam ne dañuy gis dara rek ni non man dama hémorroïde parce que tellement ni ñuy waxee hémorroïde hémorroïde lii da lay indi lii da lay indi lenn da leen dara rek ñu ni non dama dama hémorroïde jox la non fii boo ñëwee dañ lay consulter ba pare feebar yi dafa nuroo te bari bokk bokk nag bokk bokk bokk benn feebar day jur beneen comme ni ma la koy sànq beneen jur beneen beneen jur beneen comme li ma la wax ci wàllu faiblesse sexuelle mhm. am na ñoo xamante ne xam naa dinañ ci ñëw yeneen vidéo dañuy néew kattan new kattan bi lu leen ko jural hémorroïde ba am na koo xam ne néew kàttanam lu ko jural mooy tension bu monté wala tension boo xamante ni hypertension wala hypotension day wàññi kàttan am na koo xam ne diabète moo ko jural kon bu la dara jot rek nga daal di bëreet rek ni li koy faj rek daal di jóg dem par consultation tous les paramètres sont pris à compte mm-hmm. lépp ñu daal di koy saytu xool sa hémorroïde tamit sévérité bi du benn dafa am phase primaire phase secondaire phase tertiaire ba ci phase finale. Ah, d'accord am na ñoo xam ne seen bos day dem ba day. génn kon maanaam degré yi bokkul daal. degré yi du benn loolu boo ñëwee bulletin de consultation moo koy génne bu ko génnee ñu wax la traitement bi ñaata durée lay durée garab bi lii ak lii la nga daal di jëfandikoo sa garab. bu ko defee sunu borom mën la xettali. mais feebar bu baree bari la ci askan wi wax nga sànq ndax toogaay bu yàgg daf koy daf koy waral c'est-à-dire bu fekkee da ngay toog lu yàgg aussi te yaa ngi yaa ngi def sport bàyyi wu noonu sa bopp aussi itam yaa ngi les les les hygiènes diététiques mooy yi nga xam ni maanaam waa kër docteur ñu ngi koy wax ci nan nga war a sàmmee sa wér gu yaram am na ñoo xam ne seen liggéey toogaay la mais amuñu benn hémorroïde mais tamit li ma la wax rek mën nga bañ a di toog sax toog bu yàgg. am na ko xam ne deux deux heures de temps lay toog ci journée bi wala une heure de temps te fekkul fekk na moom hémorroïde itam am na ko kon loolu facteur la ci mais tamit nekkul loo xamee ni ma dañuy wax ni ki muy def lii rek da war a am kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax. merci beaucoup professeur kon mbokk internet nga xam ne yéen a ñuy suivre toujours ci Fafa leen indiloon tey. comme ni ngeen ko xamee donc yéen ñi nga xam ne kat xëy na am ngeen jafe-jafe ci feebar bi nga xam ne moom lañu tudd moom mooy hémorroïde professeur Youssoupha Youssoupha Ndiaye mu ngi fii ñaari numéro mi ñu ngi noonu di défilé woo leen ko ngeen ñëw mu consulter leen faj leen suñu borom def tawféex kon lii lañ leen indiloon tey ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon.